pour nga dafa euh, Sénégal aussi il faut pas ñu def pression ci loo xamante ni bi du droit dans da nga il def concours yàlla def admis woo parce que boo nekkee ci liste d'attente moi ñi nga xam ne jëluñu leen te sax liste d'attente boobu am nous ñoo xam ni commencé nous leen jël parce que ñu njëkk ñi am nous bàyyi ba ñu ngeen di remplacer donc kooku processus procédure boobu beaucoup ak procédure bi nga xamante ni moom bu donc procédure bu bees bu ñëw. Sénégal yëpp day day am lu ñuy wax équité dañ ciy yamle donc yëpp Sénégal yi daal boo xam ne bëgg nga euh, ñu jël na nga dem ci compétition bi bu ñu ubbee ubbi nañu euh, yónni nañu li euh, lien bi na nga dem à partir de trois nga inscrire moo gën a wóor mais toog fi aussi di def pression kon bu fekkee kon kay ku mu neex rek ñi nekkoon liste d'attente il y a donc dix ans il y a cinq ans il y a trois ans il y a quatre ans bu leen neexee ñun tamit ñu ngi ci ay liste d'attente donc loolu fas yooyu bu ñu duggee du sotti nañ dem daal ci compétition bi rek lu ci yàlla ku ci yàlla def ci sens incha allah dañ ci jël.